for me, your love. Oh, my baby girl, you're Jema. Oh, my baby girl, you're Netama. Oh, I'm gonna man, up. Oh, I'm gonna up. Oh, I'm gonna need a man a burger. I'm Yes, I'm a love. But I know best I'm a job. But quite some time I cop foo romb da ngay mel ni bomb nga yëpp ci na di la xool ka sax nga seen xool ndax yow yaa fi gën a mool da nga naa sama fëgale mool oh baby jege ma su may way jege ma ay yow neexal ma su ma gisee may mel ni ko dof ay yow mel ko off ba dëkkam fi ba yor mu jël taxi ñëw di la sexy ba pare nga teg lu sexy comme baby yaa sama bër sa friend, bu yeboo sama pay sama la copain ma nga lu fa Money, money, go for four. But yeah, I'm a three, four, baby. Show me what you want. Show me what you need, need, need. What you can do just for me. I know you got it, and I need it. Can you show me how it's gonna be? Show me what you want. Show me what you need. What you can do just for me. I know you got it, and I need it was gone, Boom, boom, nyoza boom Yangu nek next to the room Yaka nada My Namana meni li vibre Haha, hamnan hargama Me hamgarek Nan wutal Lumen jama Oh, boom, shutara door Tati for dollar Utati waktan Mal wak lu ngene wetan Men du musa jeex Man le setan Am sumu nekk yow du ma plus Nga jam ma bii الكون تمربط ما لبون من بكرة ما لبون لبون baby لبون baby show me what you want show me what you need need need what you can do just for me I know you got it got it, and I need it can you show me how it's gonna be show me what you want show me what you need what you can do just for me I know you got it

what you can do just for me. I know you got it, and I need it. Can you show me how it's gonna be? Show me what you want, show me what you need. What you can do just for me. I know you got it. voilà, merci de votre fidélité, merci d'être toujours avec toi, même tu sais, comme toute la semaine du lundi au vendredi à 17h, 19h sur les antennes de la DTV. Donc c'est un plaisir de recevoir un jeune talent à l'état pur, Mozit, qui amène une nouvelle touche euh, dans le mouvement hip-hop. Mozit, s'il vous plaît, rejoignez-nous euh, sur ce plateau de toi, même tu sais. et bien sûr l'actualité de l'internet avec euh, Raymond qui va nous parler de tout toute cette palette euh, de l'Internet. Et ce soir, aujourd'hui, vous avez euh, Myriam. Myriam, trucs et astuces, mode et beauté, euh, qui va nous parler d'une nouvelle technique d'onglerie appelée technique canadienne, qui va être réalisée par l'Institut INAIA depuis Zone B, par la présence effective de Marem Bamba, Fatima, bien sûr. Donc, unity Boubachabar tout à l'heure. ce sera avec Myriam. Fatima Borom, bébé et maman, aujourd'hui, nous parlera la salivation excessif excessive euh, pendant la grossesse donc lolu mu nek lu am solo nga xamantene euh, salivation excessive moy manam tuflit bu bëri bobu nonu nga xamantene day dal jigen ñu wérul donc tay da ci waxtane waye xam ngeen ne euh, ci biir loolu yëpp alaaji Saala Biige Njaay ki nga xamantene mom moy borom leçon du jour momit mo mu ngi fii ci bëss bi wara indi benen jangat ci walu lépp li nga xamantene da leen di soxal ci sen leçon du jour waye tamit Yoro Ndiaye Yoro Ndiaye mi nga xamantene euh, c'est le natif de Mbaké def lu am solo ci réew avec ak bitim réew ba àddina yëpp di ko coow nag àjjuma demain muy fête anniversaire am foofu Villa Cristal ñu nar a waxtaanee loolu ci programme yu am solo donc pour démarrer bien sûr en toute beauté nous allons commencer avec l'actualité de l'internet présentée par Réma c'est tout de suite l'actualité euh, sur l'Internet. On démarre avec Sénégo qui vient de nous donner une information euh, sur Brian Gay, la famille saoudienne aurait retiré sa plainte euh, les négociations se poursuivent. Donc, Alassane secrétaire exécutif de la Ligue des droits de l'homme, LDH, a affirmé une probabilité de libération de Mbayang Diop menacé de décapitation en Arabie Saoudite. Donc, en effet, Mounenni, euh, suite à la visite du ministre des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite au Sénégal mmh. et de l'éventuel départ euh, de son homologue sénégalais, ce jeudi 4 août donc la famille de la victime aurait euh, retiré sa plainte donc ñu ñuy xamal aussi à Dakar Flash nous ñu xamal ni ministre euh, ministre bi nga xam ni moo yore affaires étrangères bu Sénégal te nga xam mm-hmm. euh, depuis le 3 août bi ci Arabie Saoudite rencontré na kii nga xamante ni nii moo di Mbayang Diop fekk na ko fële ci nga kii bi ñu koy prison bi nga xamante ni nii moo mm-hmm. Faisalia, à 450 km de l'est de Riyad milliards donc mom fekk nako fa nee aussi ci condition yim ko fekk nek na condition yu normal euh, torturé wuñu ko sonaluñu ko donc mi ngi koy dalal xelam diko xamal ni euh, Sénégal yépp ñi ngi ci ginnaawam ñi ngi koy jàppale mm. donc euh, liñu ñu japp dal moy ci jamono ji ak négociation yi nga xamanteni ni mo nek di am yépp Nicolas am nañ xel mu dal am nañ xel mu rafet ñi ngi njott ni mm. suñu compatriote bobu di Mbayang job dina ñibisi bala yag fi ci Sénégal inshallah amin ya yaa rabbal aalamiin alhamdulilahi rabbil alamin loolu la jox waaye santati bu baax ñi nga xamante ne moom mooy njiit réew mi ak gouvernement am ah, ndax ah, gis nañu ah, taxawaay bu ñu ci taxaw ngir wane ne rek askan bi moo leen fi tax a toog donc Mbagnang jóob lépp li nga xamante ne rek ñoo ngi ko ci doon ragal ah njabootam ay bokkam ay xaritam ba ci képp kuy doomu sénégalais foo munti nekk rek yaa ngi ko doon ñaanal di ci bàyyi xel waaye lii nii ñu am léegi nii nee naa du sos du créé waaye lu mu yëg mu siiw indil nañu ko muy première actualité de l'actu buzz Alaaji Sala Bigué ana loo ci ana jàngat boo ci def ma rafetlu ko trop lii moo lay woon rek sunu sunu état état bu mag la te nit <clears throat> ku ne sa doomu réew fu mu nekk boo suñu jàmm ak salaam rek la fay nekk. Hmm. dama la waxoon fii rek plateau bi. bu nu waxee ñi war a wax bu nu waxee rek ñi war a dégg nañ dégg mais léeg-léeg xam lan moo ñu sol la ñi war a nopp ñooy wax. Hmm.

di di ñaan yàlla suñ yeneen rakk yi nga xamante ne ba ñu nga fa te nekk ci ay difficulté état bi tamit dugal ci seen loxo xool yi saytu yan anam balaa lu mel nii encore di fa juddaat ko parce que bëri na amoon na alerte balaa lii di am ah, quand même parce que te xam nga na am na li ñaan xool bu feesee moom xam nga par lu nekk mën na ci xaj lu nekk mën na ci xaj parce que euh, yàgg nañ dégg ay ay ay ay ay bon yu nekk foofu di nekk di dundee ay métit xam nga peut xëy na voilà euh, dañ ko poussé à bout te jàppante moom lu nekk mën na cee am. dëgg la donc balaa loolu lu mel nii di amaat donc comme yeneen suñu ay doom ñu ngi fa ñu jéem a saytu ci yan anam lañ fa nekkee. Hmm. voilà ko man je trouve lu lu baax. Euh, tout à fait tout à fait def sax li nga xamante ne moom mooy euh, waa DIC ah, jot nañu liggéey liggéey bu am solo ci agence clandestine yooyu nga xamante ne ñooy tàmm di yóbbu xale yi foofu noonu. Hmm. ci Arabie Saoudite tamit ci Maroc parce que tamit dañ fay gis ñu ci hmm. dund ay jafe-jafe yu yu mel noonu vraiment. tout à fait Nicolas mieux vaut que jamais c'est vrai que hier, euh, comme alerte donc comme nous ngi nous avons nous mouvement parce que li amna ñu wax ci bu parce que ñi dañu sonal nit ñi parce que nak jël doomi jambour euh, yobbu ko gëmlo ko dañ lay mm-hmm. million dañ lay fay quatre 000. dañ de il faut nga mm-hmm. passeport muy visa muy sa billet mm-hmm. lolu ko au minimum un million ñun la koy

Camara d'accord uh-huh. c'est ça daa gis nga ah Mouhamed Camara day ngi nii lii de la ñu indil ah <laughs> saal bi man daan naa gis ay Mouhamed ñu ko ay Mouha ah. ay Medzo ay Met waaye mu sit lu xew <laughs> Hein? bah loolu nous en anglais Nous sommes en Nous non en ah. chaque jour anglais en fait Nous sommes ba nga d'accord chaque jour dañuy jël la en fait vulgariser sommes xam bu quoi en quelque sorte mais moose tout arabe quoi c'est un mot arabe mais shit shit shit bi high level high level high level ah. musulmans shit shit chaque jour mm. me un plateau il faut que en fait américain quoi chaque jour benn terme boo ben, xamee benn. mais le shit la. ah shit shit là. shit waaw ah, c'est la même chose Ça bos la la. shit ah d'accord la même chose. d'accord ah, mais mais daa am signification mu ko parce que deux il a ko oui, muy. high level. High level. Voilà. Ah, high level. Voilà, high level. Bien, très bien. High level. D'accord, d'accord. Et vous avez démarré votre carrière hein, depuis quand Quand vous avez tambalé les gars, vous avez fait mon rap Bon, je suis en... officiellement, je suis en 2011. 2011 laa ko defoon mais dama defoon stand by deux ans pour dugg tuuti ak euh, ay artistes yu mag nekk fii. ma gis ni bon hip hop bi lu mu demee bon dafa xat et tout ça léegi ma ñëw ba ci biir c'est viré tout dem ci crunk musique bi ak ci afro dance bi. moo tax quoi instant yi may def euh, crunk afro dance mais demi on l'a démarré. lan après 2013 ma commencé. def ak rap lan mooy seen différence. donc crunk en fait crunk comme rap la quoi c'est-à-dire rap rap rap rap du style musical du style musical en fait hip hop mooy style musical rap mooy nga tegu ci instrumental. dans manière beneen mm-hmm. façon de wax la. lyrical c'est ça mais par exemple mu nga rap sax ci afro dance comme ñu Wizkid ñuy def tey. très bien instrumental Wizkid mu ngi def def rap. Hmm. ba wax rap mais dans ben genre bu ñuy genre bi lan la afro dance la. wala nayga la. d'accord te mun nga rap par exemple si hardcore genre bi hardcore la. très bien c'est-à-dire mais hmm. rap la quoi. c'est-à-dire mun nga way sax par exemple si Fatoumata hardcore. Hmm. mais lu muy doon hardcore lay doon. mais da ci en fait way très bien c'est ça c'est important. Ah, donc euh, nga 2011 ba tey yaa ngi ci game bi comme ni ngeen koy waxee euh, mais ci yan djégo nga jotagum def yi nga xamante euh, sénégalais yi war nañ ci mëna a teg loxo voilà en fait en dit 2013 mais m'a maa gagner parce que promotion là promotion en ce moment de vidéo mi baby girl on l'a di def mais. je diggante bi ci je bi en fait il y a showcase quoi. d'accord showcase school.

ah tok tokk hein? waaw. mais tok tok au fur et à mesure nga koy jël tok tok ni mujjee ah. ah bon <laughs> bu bu yàggee soo bi du fess non du fees tok faut en fait en fait il faut nga xam sa volé tamit c'est-à-dire man euh, hmm. je me lu euh, mu je suis pas vaniteux quoi et tout. d'accord moi en fait je suis pas orgueilleux. mais tamit da am liggéey bi da metti. très bien musique dafa metti. Hmm. té yow ñay xam na lu may wax. dëgg la musique da fa metti. Hmm. nga ñew yo woo sa orchestre ñew da fa voilà c'est important dinañ ci wat légui ni ci kanam touti mo bok na ci suñu invité bëss bi ah. waaye laata ma ci sori damay wax joyeux anniversaire à tous les natifs de ce jour. Santé, bonheur, prospérité, succès et beaucoup d'argent, mais plus particulièrement à Myriam Sissé Ndiarmeo. Euh, Myriam Sissé, Borom Trucs et Astuces, Mode et Beauté. Tay, elle fait une bougie de plus, donc tay moi bosse un bu dellu si moo neex ci kanam touti ah, danañ ah ma def ci bongo ah indi bugarabu indi talmbat indi ndeer indi gorong ah indi mëmbëng ah, ah. le rek ngir ngir sargal bi ko Myriam ah, tey nag ñoo ngi gis yaa ngi dalal institut bi nga xamante ne moom mooy INAYA INAYA euh, nga xamante ne euh, xale yi jamono jii nii ku jekk rek foofu nga génne euh, tey nag ñu lay defal technique onglerie bu bees bu ñu tuddee technique canadienne voilà Nicolas comme ni nga wax tey waa institut INAYA la ñu fi dalal. tey nag ñu nar ñoo defar loo xamante ni vraiment dafa doy waar amul fenn ah, parce que dafa nekk ay ongles yoo xamante dafay changer couleur selon yow sa température mais également fi nga nekk donc mu nekk. loo xamante sa température voilà bu fekkee ah da nga tàng torop ah. ongle bi day changer couleur. mais bu da nga tang torop magie nga may wax c'est vrai que c'est c'est la magie de la télé mais yow yaa ngi indi magie de l'onglerie voilà c'est incroyable Nicolas ay hmm. ongles yo xamante bo tangé torop mu changer couleur mais également bu féké da nga nek ci ben endroit bo xamné dafa sedd da fay changer couleur euh, également d'accord donc tu es lañ lay Tu es loolu ma nuyu Fatima moom mi nga xamante ne euh, moom ñu a gën décortiquer affaire yi ñu waxtaan euh, bonsoir et merci d'avoir accepté cette invitation Fatima euh, Li muy wax c'est mooy nouvelle technique d'onglerie ñu koy technique canadienne ana lan que ñu ci mën bon alors euh, je vais dire bonjour à tout le monde d'abord et donc. Euh les en fait, on euh, <clears throat> nouvelle génération. En premier. Le micro, d'accord. D'accord. Mhm. Euh, donc, en premier, euh, résine moi à Après ça, moi, me gèle. Donc, cette nouvelle génération, c'est un mélange de résine et de gel. Mon menu indi. Mhm. Donc, affaire ouverte, D'accord. Inaya, avec mon Sénégal. Ah bon?

Micro, le micro. Voilà. Excusez-moi. Et euh, du rouge qui, qui va vers le noir. D'accord. Ou du marron foncé. Très bien. Voilà. Donc, euh, c'est comme elle a dit, ça change, ça change de couleur selon ce humeur, selon le, le, temps mhm. et son environnement. D'accord. C'est-à-dire, euh, pour elle, s'il fait trop froid, l'ongle va changer et il va être orange. orange là, au lieu de jaune. Bah les mu orange dit. mi orange. mi ah. orange instant yi nii. ndax dafa sedd fi c'est parce que d'un euh, coup ah. spray dañ ko. spray d'un coup pompé voilà d'un coup pompé bu fi anglais de. bàyyi leen ah, ma nag <laughs> d'accord d'accord. Uh-huh. Et donc, euh, l'INI, en fait, d'où euh, c'est pas n'importe qui qui peut le faire aussi, c'est parce que euh, la propriétaire a été euh, certifiée par All Nail and Beauty, de Montréal. Mhm. Et donc, même les produits, en fait, euh, c'est pas n'importe qui qui peut les avoir. D'accord. So, Django, les fofu, nous non un produit. Alhamdulillah. Donc nous aussi, on a la chance. Hein, Vous avez la chance, d'avoir Inaya. De recevoir donc... Inaya. Donc c'est pas n'importe qui et on n'est pas n'importe qui. mais Mais, mais man, ah. euh, changement de couleur et tout, ban, ban objectif lay am. Par exemple, là le lay djural, nga euh, def vernis rouge, djeki djeki mou marron, wala mou noir, wala nga def vernis jaune comme Myriam, ou djeki djeki orange. Est-ce que da lay permettre ngay baña nek fi di changer chaque fois yere bo sol, dem di changer vernis ou bien bien daf permettre juste se lay amuser di la tout. outil ça dépend des gens moi je le fais très souvent. Mhm. c'est juste que jamais être spécial. Il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi le truc en fait. Et donc euh, tu peux changer comme tu veux. Ça dépend de ce que tu veux en fait. D'accord. C'est vrai mhm. C'est Pardon euh, c'est fun. Et il dit que c'est fun. C'est fun. exactement c'est très amusant. avant c'est fun am lu mu a wax. lan la njëkk wax. d'accord. L'heure alors. la waxoon. non daf ne changer changer couleurs, truc comme ça ma ne ongle kakatar la xanaa. ah. <laughs> Hein? caméléon <laughs> caméléon mais ba tey dagan na ba tey ba tey dagan en tout cas dinañ dellu ci wat tout à l'heure ci yene bu ko defee ñu gëna yaatal ah pour euh, téléspectateurs yi mun ci bénéficier wu ah, donc tout de suite dinañ ci ci wat légui ni waye la laata ñuy muy gëna a yaatu rek dañuy dem and ak ki nga xamantene mom moy borom bébé maman ah, Fatima mom mi nga xamantene tay mo na ra waxtané la salivation excessive euh, chez la femme ah, enceinte donc c'est tout de suite nga salivation excessive. waaw moom la ñuy wax hypersalivation wala un excès de salivation. Mhm. mu nekk nag euh, benn symptôme de de grossesse daf cee bokk. Euh, symptôme de grossesse boo xam ne nag euh, moo sonal ñii di jigéen wérul yi da ngay xool sax bu fekkee ne da nga dem internet ci euh, précisément ci forum yi femmes enceintes nga xamné fa lañuy nek di waxtaan ñi di partager sen expérience ñi di poser ay questions. Mhm. mais da ngay gis lu jëm ci salivation euh, excessive bi euh, jigéen ñi dañ ci intervenir bu baax parce que dafa nekk loo xam ne daf daf leen sonal c'est vraiment nak désagréable ngay ngay toufli à chaque fois. Hmm? tufli à chaque fois imaginer nga bëgg def ben affaire wala nga bëgg a waxtaan doo ko mën euh, tufli bi moo lay jàpp à chaque fois da ngay obligé di dem ak a ñëw. Hmm. am na ñoo xam ne ne loolu dafay di énervé dañuy dem ba énervé affaire bi dafay dem ba ba stressé leen ba stressé leen euh, léegi moo pour ñu génn ci da ngay gis ñoo xam ne dañuy jël ay pot def ci suuf ah pour mën a di ànd ak moom fu ñu dem parce que daf leen sonal te hmm. amuñu choix wala ñuy jël euh, mouchoir foofu damay interpeller surtout entourage bi xam nga parfois ci kër yi ak situation bi ni mu fay demee du ñak ñu lay sànni yenn track yi xam nga naan ay dafa salte am diw ëmm na fi té lolu ah defu ak yooyu ñu japp né ne phénomène bu bu bu normal la euh, ñu ñu gungé len ci rek euh, dal di len ci jappalé li nga xamné né mom moy euh, la salivation excessive nu mu ngi manifesté woo nag ci premier mois de grossesse bu ñu né premier mois moy particulièrement premier trimestre bi moy premier mois de japp ba trois mois gis nga am na yenn jigéen yoo xam ne mën nañu di di tufli boko na nattee mun na nekk deux litres par jour. waaw 2 litres. d'accord waaw xam nga loolu. loolu ci mooy période jafte. li ñu waaw mooy jafte. d'accord waaw xam nga xam nga jafte dafa am euh, nu am na nausée vomissement. Hmm. am na tamit tu tufli salivation. et c'est hmm. tufli loolu tamit voilà loolu tamit ci la ci la bok, ben la ben la ci ki si jafte yi benn la. am na ño xamné né par jour li ñuy tufli dina dem ba mat 2 euh, litres. Hmm. nga xamné né xam nga lolu nonu euh, de metti na. waaw dafa metti trop Légui buñu démé journée bi yépp daf leen di dal. journée bi daf leen di dal Xana rek buñu démé ba ci goudi si peut-être bu nelaw ci lañuy am ben moment de répit ci lañuy ñuy xaw mais gis nga buñu démé ba yeewu ba reprendre seen esprit rek lolu daf leen di dal mu nek symptôme de grossesse mu leen di gunge nak ci normalement ci trois premiers mois yi mais bo démé ba dugg sa 4e 5e mois di nga gis né moy mooy commencé dañ mais amna jigen yo xamné né ñom lañuy wax elles sont moins chanceuses da ngay gis ño xamné ne ne mm-hmm. da leen di gunge pendant 9 9 mois pendant 9 mois mm-hmm. euh ñu bëri nak ñuy laajte euh, lan lan moy waral comme par exemple qui euh tufli gu bëri gi di ko dal alors que quelqu'un ki du ko dal tellement que dañ naan est-ce que ñoom amuñu problème lan mooy tellement que affaire bi dafa de dafa leen sonal. Mm-hmm. mu nekk question bu délicate di leen wax rek amul amul lenn loo xam ne ne wane na mooy certifié ne li jigéen bi da koy dal. que mm-hmm. que du ko dal dafa nekk benn phénomène euh, bu bu bu naturel. mais n'empêche am yenn théorie yo xam ne jot nañ cee avancé. Mm-hmm. ñu ay théorie yo xam ne yu wane quelques causes yo xam ne ne cause mooy causer tiflit bu bëri bi. benn bi ñu stress. xam nga tamit lii day wane stress ñu ne ci la bokk stress fépp fu mu nekk rek bu fekkene li ngay yek c'est anormal bo ci boolee stress rek day gën a wa mhm. waaw mom il faut que entourage bi ak ki nga xamné né mom moy femme enceinte bi loolu mu koy gëna a stress mom stress moom euh, baaxul ci dara Yoro Ndiaye en tant que euh, père de famille est-ce que limi wax ni mos nga dund nak hein, situation bu mel nii hein? waaw man euh, en fait mosuma ko dund honnêtement nak mosuma ko dund parce que man suma soxla bu mu enceinte j'étais pas ak moom quoi. moom ah, nekkul nekkul woon fii. d'accord euh, voilà moo tax. Mhm. voilà sinon am na benn période boo xamante ne bii nekk naa wax moom je sais que métti na mhm. parfois li ñuy enduré. comme c'est c'est très difficile quoi. d'accord la waaw mooy mhm. xaw a quoi. tout à fait. ça bi ngeen. non li wax ni c' est vrai parce que nag aussi doom bu nekk ak ñi muy ñëwee. doom bu nekk ak ñi koy ëmbee. dëgg nga am benn doom doo jaar ci jafte. mooy ñaan waa kii moom ëmb bi fan la ko dencoon dañu jekkee ñu ne diw accouché ne ñu ne waa kii fan la dencoon ëmb bi du ñu jaftee du ñu def du benn signe boo xam ne da xam ne sax ñii nekk nañ enceinte uh-huh. am ñoo xam bu ñu amee ëmb ñooñu wax ne dañuy dañuy ëmbee wet waaw ah, pourtant loolu ëmbee wet ci taay la noonu ëmbee wet ci taay la ah, bu ñu nee jigéen bu njool ah. dafa am wet bu dee jigéen bu gàtt mm-hmm. bon ëmbam dafay metti parce que dafay gàtt quoi day biir bi rek teel a feeñ affaire yooyu mais lii moom dafa nekk loo xam ni li Fatima wax c'est dafa am solo amna ño xamni dañu ëmb ba imbi du len dal. Mm-hmm. am ño xamni 1 mois ba kenn ñu am 9 mois daf len dal. am ño xamni 1 mois ba 3 mois. mais dañu naan la plupart 3 mois yu njëkk yi moom. faaw yoy si ñoy du ko am. am na ño xamni yalla da len dimbali amul duñu jaar sax ci yooyu. am ño xamni ne dañ ciy jaar ak loolu tonton Sall dafa nek lo xam ne ne tamit entourage bi surtout man fofu lay gëna ki di indi parce que jigéen yi dañuy nek ci famille yu mag yi te xam nga parfois duñu sentir trop à l'aise ak yooyu légui ñu nek ci moment yu difficile yooyu ba pare nga bëgg ci boole ay gaarawaale wala wala ay trac surtout ñoom baax na aussi ñuy xam ne euh, jigéen wérul bu amee yenn manifestation yoo xam ne mu ngi koy def wala yenn comportement ñu jàppale ko ci soutenir est-ce duñ koy tey sax ngir tendance ko hmm? <laughs> wala wala nga gis sax benn euh, borom kër boo xam ne jabaram day toll ci jafte lu mel nii dal ko mhm. nga gis ñu dem ba di la siixlu mhm. ah, di def yenn manifestation yoo xam ne yow sa bopp da ngay généw da ngay xam ni nit ki daf la siixlu <laughs> te fekk na xam nga yéen bokk ko donc bu mu neexee yéen

stopper stoppé. Euh, ah même côté médicaments sax hmm. peut-être lu lay aidé mu calmer. mais mais anecdote anecdote anecdote c'est parce que. Hmm. dafa am ñoo xam bu ñu ëmbee dañuy réew. <laughs> ah bon dañ ci boole lu ci bokkul. caprice bi lay ci xar mi karaw. léegi nag noo déglu rek. ba xaar mu ñëw xam nga wax yoon la bu àggul doo xam fu ma jëm. Ah, dagguma bu daggee yoon bi. <laughs> léegi bi ma bëggee moom mu bàyyi ko comme eh. yooyu ma leen di mhm. dama ñëw fixé ñëw ni ko. ma jigéen mu ne ah ma ne ko gis nga boo dee ëmb di def yi ba màggee sa doom doom bu salte ngay am. <laughs> et booy bi day con. i naan ma ah kon de dinaa ko wàññi <laughs>

famille surtout si cause yi nee nañ yi nga xamné dafa bëri amidon comme li ci mel euh, pat yi wala wala ceeb lu bëri dafa bëri amidon té loolu aussi da koy yok mais nek na théorie bo xamné né euh, ki wul torop amul dara lu ko lu ko certifié parce que tamit bu fekkee euh, ceeb ak pat xam nga duñ la mëna wax rek nonu bay ko parce que tamit dafa bokk ci alimentation jigen bu wérul pour mom mu mën ko bay wala mu mën ko wañi loolu da cee wara a waxtaan ak ki nga xamné né mom moy médecin wam mm-hmm. légui nak ñu si bëri dañuy laaj traitement ah ni euh, ñii di gynéco euh, sage famille chaque fois femme enceinte de ni mais euh, tout bi ak mm. comme yo est-ce que pastille ak amul ben lo xamné da koy peut-être mën jël pastille. wa da koy calmer rek. da koy calmer da koy calmer <laughs> xam Fatima 2 nak amul ko dundul am kenn ku nekk ak ci kërëm ah ñu nga mu ëmb di di di yu comme niñ koy waxtané ni sa micro sa micro sa micro.

doomam bi am ay affaire yooyu. Bah. mu koy muñ mu koy muñ waaw. muñ bi est-ce que baax na ci tonton d'accord d'accord <laughs> très bien. man sax damay faral di wax jigéen bu ëmb sax bu la neexee reewal. Mm-hmm. parce que li ngay daj yëpp ci 9 mois bu ëmb sax na reew. wa non non bu re bu ëmbul sax na reew. merci tey d'accord naa ak ah, jaajëf waaw ah, bu ëmbul sax na reew na fuy. léegi ah, li jëm ci ci traitement bi. li nga xam ne mooy hypersalivation moom traitement médicamenteux moom amul. Mm-hmm. mais euh, par contre peut-être sa médecin dina la prescrire yenn médicament yoo xam ne dina la mën a aider ci li nga xam ne vomissement bi calmer mm-hmm. conseil yi comme qui waxna peut-être calmer mais aussi wax jigéen yow nga kew kew

tamit ñu ñu moytu ko. Mm. parce que tamit bo xolé ba ci biir. amna na mm. jigéen yu bari stress. mo leen mo leen gëna sonal surtout euh, ci buñu nekké ci kër yi. motax lepp lo xamné xam ne dañoo wara euh, daw lepp lo xamné ne dal stress la leen indil daw ciow ay wax yu sew ak lo non yépp euh, nañ ko nañ ko moytu. légui nak li nga xamné ne mom moy hypersalivation excessive aussi da fay faral di indil complication complication bi mom moy mën ngay faral di am irritation si sa gaming, xam nga à chaque fois ngay toufler di toufler wala nga jël mouchoir tellement que dalay énervé mën nga ko def de façon rapide mm-hmm. léegi lolu boo mootul si sa wetu gaming bi mën na am irritation lolu la y a irritation cutanée autour de la bouche mu am mm-hmm. comme ay rougeur wa, da koy voilà da koy da koy da koy rocc aussi le fait que ngay toufler lu bari mën ngay sax di faté nan ndox mm-hmm. wa, mën mën nga mën nga déshydraté wu aussi euh, nañ ci bàyyi xel mais ndox bi ndox bi euh, nañ koy éviter di bañ di nan, comme par exemple le matin ñëw rek nan

Amour, amour. amour changement hormonal. Euh, bon ça vient naturellement hmm. kon euh, lolu nañ ko xel euh, bu vidéo hmm. bonus bébé mom <laughs> indi vidéo <laughs> vidéo rek avec la complicité de la régie ñu c'est parti ওরে দেখতে ভয় লাগতো করে যে সময় ছিল সে মরে কোলে তাহলে বালি দিয়ে তাই কোলে থেকে চিকিৎসা করা হয় পরে মাগুরা ছিলাম তিন চার দিন পরে মাগুরার ডাক্তার কিছু না তারপরে আমরা চলে গেলাম ফরিদপুর ফরিদপুর যার ওখানে আমরা বারো দিন ছিলাম মারা যেত তারা একটু ঠান্ডা ছিল সেখানে ঠান্ডা মান্ডা সবাই পরে সেখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় সব ডাক্তার আসবার এমপি সাহেব ওনাকে দেখানো হয়েছে দেখানো হয়েছে জয়ন্তমে দেখানো হয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় যেখানে বলে সেখানে আমরা নিয়ে গেছি waaw quatre ans rek la am quatre ans kase la toll xale mm. bi nag moom munul jàngi école ndax euh, physique nous nu mel parce que xalé yi dañ ko ragal bo boko ko mu am 4 ans nii te mel nii c'est parce que dafa am ben feebar mhm. feebar bi mu ngi mom lañu wax euh, progéria ben feebar nak bu raar la mhm. bobu da fay tax li nga xamné moy mooy da fay vieillir da fay màgget vieillir huit fois plus plus rapidement donc bokkul ak maladie de Parkinson non non non bi euh, progeria lañ koy wax ben maladie bu raa bu xamné li nga xamné moy mooy da fay gawa gaaw 8 fois plus rapidement voilà li nga xamné né aussi mom moy visage bi da fay gonfler wu mm-hmm. peau bi euh, di di lâcher da fay mm-hmm. ba da fay souffrir aussi yenn da fay am yenen souci physique bi nga xamné ne da koy empêcher mu vivre euh, normalement mm-hmm. lek li nga xam ne moo jëm du mën a màgg tamit euh, bon nee nañ am ay spécialistes yi wax né ne mën naa dund ba mu am 13 ans ah. wa jox fii ba mu am 13 ans parce que ñu né bu demee ba am 13 ans mën na jékki-jékki daldi euh fatou ci mu am ci euh, nu mu tudd euh, cardiaque crise cardiaque wala mu am AVC mm-hmm. mais ni la mel wayé euh, téwul li nga xamné mo moo jël ci xélam

ay mbiram. Mm-hmm. parce que yàlla fu ne la mën a génne lii dafa war a doy kéemaan pour que ñu gën a delloo suñu xel. Mm-hmm. xam ni yàlla dina jël mag def ko xale jël xale def ko mag. lii lépp ay firnde la rek. ñu delloo suñu xel ci suñu borom ba pare. Mm-hmm. lu mel nii bu dalee nit ñu bàyyi di la joxoñ di la daw wala di la ragal te xam ni lépp rek suñu borom la. tout à fait lépp suñu borom la euh, Alaaji Saale bi eh, gis nga de ah. yaram daw na. loo xam nga lii mooy wan rek jigéen dafa war a góorgóor jigéen jur ku ne. Hmm? jigéen dafa war a góorgóorlu xanaa xamul liggéey boo xam ñaar ko séq te lu ci yàqu ñu jiñ ko kenn ki kenn ki war na góorgóorlu mm-hmm. waaw mm-hmm. jigéen muy jur ku ne kii fi ne nii am na lu muy demee sax papaam bu xale bi ki mun ko kaa jël sa doom ji mm-hmm. yaayam rek moo koy nangoo accepté moo tax jigéen dafa war a góorgóorlu domit aussi bu màggee juddu fu mu war pataluñ ko làggaluñ ko bu màggee na fonku ndayam d'accord parce que waajur dafa am solo li ko xamni ne lu metti la c'est important merci yalla moy bindé moy bindé lu ko euh, en tout cas euh, defati nga comme ni nga koy tàmm defee sa mënin ah indil ñu lo xamante dafa yété yeete ndax nee nañ leen euh, nous allons vous informer vous instruire mais aussi vous divertir ah, donc li bébé et maman ko ko xol xamné ne amati na njëriñ ci société sénégalaise ak fu munti nit munti nekk ci adina ah, donc merci de nous rester fidèles donc ñu and ak batay ak Yoro Ndiaye Yoro Ndiaye euh, mi nga xamantene euh, lam fi def bëri na buñ koy lim duñ fi jógee waaye yaangi wadjal lu am solo muy anniversaire euh, fofu ci Villa Cristal muy beusu aljuma muy suba inshallah mhm. ñu bëggon xam rek le pourquoi parce que ñu bëri ñoo ngi naan Yoro musul fété anniversaire waaye bi pa ñun wa xarit club ak ñeneen ak ñeneen. ñoo ci mhm. japp xëccu ko mhm. ngir mu mun ñu defal lu mel non ci aljuma bi. waaw en fait man d'habitude du ma fété feete sama anniversaire xam nga par en fait feete anniversaire affaire. question de culture la quoi man Bawol laa juddoo par pas son anniversaire donne na ñëw ba son sax sama parent duñ quoi en quelque sorte non c'est vrai c'est une question de culture bu faites nga tàmm nekk ci famille boo xam te chaque année dañuy fàttaliku ñëw fêter le truc comme ça mosuma ko dund. Mm-hmm. moi tax parfois am nay temps danaan ñëw ba dem sax du ma ko fàttali sama xel sax du si nekk quoi. Mm-hmm. bi mu waaw bi ma demee ba après bon su jotee. Mm. tamit dootuma ko woon fête malgré nom n'a ko fêter mais je préfère naa fi la xam nga ñaan yàlla gën fee yàgg yàlla yokk xéwal yi. bu yëf fête yu def ak groupe bi anniversaire groupe bi la daan don wala affaire et puis fii dama daan jël événement bu mag dem ci salle bu mag def ko fa woote fii quoi mais xam nga sama ay nit yi moom boo am boo na foo xam ne boo fa tollee en fait moomatuloo sa bopp quoi en quelque sorte même année yi passé yëpp su ma ko lu ma ko bañ a feete bañ a feete mu tëddee sama kër sax damay toggum yàgg ñu ñëw livré ma gâteau xam nga hmm. ñëw livré ma dara ñëw xam nga léeg-léeg am na benn année boo xam te ne bi xarit club dañ ma ñëw jël yóbbu ma benn restaurant ñoom ñëpp se retrouvent autour de moi ñu fête et tout quoi. ñu gàtte la quoi. waaw jeudi bi passé comme xam man comme comme tey jii tous les jeudis mangi mangi King Fat foofu laay foofu laay jouer quoi. d'accord léegi bi ñu joué jeudi après ñu ne waaw alors grand on fait quoi affaire bi birthday bi xam nga man leen bon man defuma dara après après ñu décider comme ça léegi dañ koy dañ koy fête ñu ñu joxante rendez-vous nag. Villa Cristal j'ai appelé Babacar pour xool ba euh, vendredi c'est bon pour nous ñu mun ko def D'accord. après il me confirmer hmm. voilà donc j'appelle mes amis suma xarit yi hmm. mu affaire affaire buy bu yem rek. d'accord affaire mag quoi. Myriam tey yow suba. waaw ah, moom Lion Lion la quoi Myriam dañ koy tiiree ba suba. waaw mën na ñëw ñu waaw ñu ñu commencé ko tey ci guddi. waaw ko man xam nga tey ci minuit laay commencé. léegi commencé nañ nii anniversaire bi nii ñoo ngi anniversaire bi. waaw yéen ñëpp yéen ñëpp. Ah. waaw ñu dem Villa Cristal defar def waaw def fu mag rek. très waaw noonu lañ koy defee bi ci woo ñëpp waaw suma xarit yeeg suma am di jàmm yi mais mais mais doo joxe sa caabi oto doo ko joxee ñu dem jëli guitare bi ñu def benn benn deux trois choses ñëpp ñuy bëggee yow nag mu bëgg kepp man xamoon naa ne bi ma indi fii ma bëggoon kepp quoi xamoon ni koy yow triangle may def quoi te puis sànq daf ma jël au dépourvu ba taluma sax nuyoo quoi taluma nuyoo ñi ñi ñuy seetaan ñi suma xarit yi xam nga ñëw jël micro rek commencé di wax di tararari te nuyoo dëgg la xam nga loolu musiba la. Mm-hmm. Hmm? <laughs> ni ko ngi nii. ni ko ngi nii. depuis démb nekk mu nekk mu fi mu mu mu muy muy bajantu sama kaw def nu ko neex. dama ko seetaan bii ci guddi gi ma ne mais yaa ngi yéy nga yox yooyu kat de waykat bi nu mu tudd Abou Kamar <laughs> Abou Kamar sall bi Kamar mu naan mu naan waaw mu naan ko yaa ngi ku soof a woy mu naan ko yaa ngi ku soof nag <laughs>

voilà <laughs> très bien donc c' important voilà donc xanaa balaa ñu lay bàyyi di nga def playback ah nga ànd ak moom génn ñu bàyyi la rek parce que xam nañ ne jot amul. waaw ah, ginnaaw bëggoo joxe caabi oto bi ñu jëli ñu ñu yëngal waaw ñu yëngal ci suñuy mbagg ah, ñu yëngal ci suñuy mbagg. ah, ah waaw waaw problème. voilà donc c' est important ko bañ. très bien ayca kon ñu bàyyi ko mu dem léegi sur scène def benn morceau bu am solo mu yeetewaat parce que moom lépp lu muy woy rek c' est d' actualité donc Yoro Ndiaye sur scène dans toi même tu sais c' est tout de suite

xar. <laughs> tax très bien merci beaucoup en tout cas merci à Yoro merci et on se donne rendez-vous demain inchallah à la Villa Cristal euh, ce sera à partir de 21h30 bu ko ken ah, donc dinañ ci dem def émission bu am solo 52 minutes kon continuer en toute beauté euh, car l'émission prend son petit bonhomme de chemin depuis HLM Soudida c'est la magie de la télé euh, ba tey ñu euh, Myriam Fatima Institut INEA euh, li des lay defal fu Fatima li ngeen def ni nous fu mu toll. mu pour que. nous refaites, nous ressortir. ça ressort la forme en fait. D'accord. donc tilo mhm. donc vous pouvez voir que tu peux soulever tes. mains oui voilà. ñu nous euh, nous ta yi waouh voilà gel forme mhm. instant yi mhm. et on peut un peu voir la transition entre le jaune et le orange. d'accord Donc ils disent nank nank. Mhm. suñ ko sprayé bu baax. dina gën a exactement. très bien. Euh, voilà donc nous, c'est bientôt prêt. très bien Il nous paraît voilà les questions pour moi, euh, moom mii di def bi. Euh, en général ça prend combien de temps. 45 à 1 heure de temps. 45 minutes à 1 heure de temps. D'accord. Bien fait quoi. Mm-hmm. Naka lay est-ce que vous pouvez nous expliquer technique bi nooy tàmmalee ah, ah. ak fooy daanelee en fait technique bi boy commencer tu commences déjà à poser des capsules. Pour mhm. poser des capsules yi par utiliser utiliser produit yi nga xam ne comme la Inaya de Canada. d'accord en fait euh, man pratiquement là, ko jàngee mais théoriquement c'est Marème de Inaya qui qui qui. Bamba voilà Marem Bamba Bams Bams mhm. voilà. <laughs> d'accord <laughs> moom moo ma jàngal dañ koy pratiquement. très bien voilà donc. Euh, et ça a pris du temps bi mu koy jàngal pour que vous a def non, pas vraiment beaucoup de temps parce que déjà je le faisais localement. façon bi ñu koy Sénégal. dama ko doon mhm. il a suffi que mon wan ma deux à trois jours. Mhm. Mhm. j'ai pu assimiler. d'accord nga ne une njëkkee. ay fausse capsule une d'accord ensuite nga utiliser produit pour tabac ko. si flacon on a la gel maintenant pour bi déterminer couleur bi mooy résine bi. on ko connu ci écran bi ñu ko. voilà on ko connu on ko junior mu gis ko waaw micro bi comme ko muy wax mu leer Voilà ko micro bi. voilà poudre bi moy résine bi très bien ci flacon yi ñoo ngi am gel bi mu doon deuxième génération bi. Mhm. légui bo mélanger le tout mooy la troisième génération. très bien mais Nicolas est-ce que mën nañ wax un peu particularité technique canadienne parce que vous ba légui yene ngi gis amul vernis. Mhm. donc mën nañ wax lan particularité technique canadienne voilà particularité bi en fait euh, mon produit il me génnaale. loolu particularité bi mooy gel ak résine bi ñu mélangé c'est du jamais vu la troisième génération D'accord. en première résine de amone mhm. deuxième euh, gel. Mhm. et là maintenant on a les deux. qui mhm. forment la troisième génération gel et résine. mais il faut un remplissage au bout de combien de temps parce que toute façon ongle ne peut pas faire de la remplissage parce que wéy bi day dem ba si si wéy des pousser naturellement. donc à partir de trois semaines à un mois ngay ñëw ñu le remplissage. sans pour autant que ce onglet dañ. ni rien ok également Nicolas dañuy gis ne nit ci col yi ñuy faral di utiliser day dem ba à la longue dafay yàq ongle bi ndax yéen seen col yéen a ngi koy xool bu baax. si ce sont des cols certifiés. qui viennent avec euh, les autres produits. d'accord. d'accord. Euh, je veux je veux aussi préciser que euh, soo Solène remarquer. Mm-hmm. On ne fait que tremper l'ongle tibir euh, kiwi. Mhm. On n'utilise rien. Il euh, n'y a pas de de euh, vernis. De vernis. Il n'y a pas tout ça. Mhm. C'est une poudre, mhm. le gel. Et une lime. D'accord. C'est tout ce qu'on fait. Très bien. Donc, durée, combien de temps Ça fait combien ce numéro Ça peut durer euh, jusqu'à 6 mois. Mhm. D'accord. 6 mois Oui, si on préserve bien long, c'est-à-dire qu'on fasse... Photo qui Madame, quand beaucoup de d'autres ont une photo. Si, si, si, moi je prépare avec. D'accord. Mais préparer de mes photos. Préparez-moi, il tombe. D'accord. D'accord. De mes photos Tamit. De mes photos. De mes photos. Fatima, de mes photos? Ah. Ah, d'accord Fatima numéro un euh, <laughs> gis nga li ñu la indil tey muy technique bu bees bi ñu tuddee technique euh, canadienne hein, institut euh, INEA di ko def donc yow ban jàngat nga ci am loo ci mën a dolli rek parce que lii dafa mel ni lii rafet na de. waaw rafet na en plus c'est extraordinaire surtout nag xam nga nouvelle génération bi ñu nekk xam nga xale jigéen yi dañuy bëgg quelque chose de fun de tendance xam nga. Mm. génn fu bees daal waaw waaw génn génn fu bees xam nga xam naa ne technique bi moom dinañ ko adopté bu baax. Euh, mais man li ma ci euh, gënon intéressé moy comme lu mu wax euh, durée bi durée bi parce que xam nga nga jël peut-être xaalis fay et tout ñu def ci ay produits yo xamné ne fuñ ko jëlé dafa sori certainement ça ça coûte cher après pour quelques pour quelques jours ou à la c'est pas intéressant mais en plus de euh, li nga mon né et moom mooy togg bi xam nga ni faral di utiliser omo beeg mhm. xam de javel très bien parfois beaucoup utiliser lu bëri am na nu muy def euh, mhm. donc man euh, je me dis que peut être beaucoup et def amna peut être du tâches ménagères, yep mhm. nga nga C'est une question au fait hors ah. de javel peut être mon nga peut être mon nga et tout mais peut être di dougal sa loxo ci eau de javel beeg fomp beeg wala di fobeere hmm. euh, c'est une question est-ce que euh, li nga xamné mom moy mooy ongle bi est-ce que dina adapter ak euh, yooyu les produits les produits sont assez les produits sont assez euh, résistants mmh. donc euh, moi originaux voilà moi je fais tout avec ça et, et jusqu'à présent dans mon et en termes de prix ça ça ça coûte cher pour euh, accéder accéder ce service béni non. Mm. non c'est donné hein. on a des prix assez abordables. très compétitifs. assez hein? abordable pour une nouvelle. <laughs> Euh, voilà, exactement. Très bien. Donc, nous y reviendrons tout à l'heure. Merci euh, à Fatima, numéro 2, parce que Fatima, numéro 1, moi qui dis def. bébé et maman, taï nak marem, nday, marem, yay, bams, mom, taï ah ñemewul nee na caméra yi lumière bi day métti bëtam donc tappale na ba indil ñu ki nga xamante ne mooy Fatima donc nous passons tout de suite à l'actualité euh, de l'internet bien sûr mu jox ñu deuxième news euh, ana leneen li nga xamante ne moo fi daanu deuxième news dañ koy euh, defee ak waa Dakar Flash ñi ñuy xamal ni dañuy dem ba ci sama dëkk ba muy Thiès la bagarre tourne au drame Fallou Ndiouk reçoit un coup fatal à la gorge donc tey ci suba la xew fële ci Thiès plus précisément exactement ci sama koñ muy quartier jàmm gën donc vers 10h Fallou Ndiouk euh, dafa recevoir da don dag ay ay ay ñax maanaam da don couper ay herbe mm. euh, ci all bi nga xamanteni ni mo nek ci wetu atelier chemin de fer bi euh, ca la amé ay jafé jafé xuloo ak ki nga xamni ni moy khadim Fay ba tax ñu xeex ba koku di khadim Fay daal di koy jam tesson bouteille ci bat bi mu daal di daanu itam teson bouteille bi jamaat ko ci diggu ginnaaw gi ba tax mu daw daanu ci fi nga xamante ni nii mooy raay bi euh, noonee la daal di ñàkkee bakkanam Euh, ñu woo sapeur euh, ñu ñëw accourir daal di koy jéem a sauver mais malheureusement bi ñuy egg si ñoom ak médecin yi fekkoon nañ mu ñàkk bakkanam donc loolu tax ñu jël euh, kooram néewam yóbbu ko ci morgue hôpital bu régional bu Thiès donc loolu tax ba ñi nga xamante ni ni ñoo dëkk ci koñ boobu di jàmm gën ku ci mel ni Mamadou taal nekk benn sage bu quartier bi di waxaat nañu leen dimbali ngir sunu koñ boobu di jàmm gën ngën a mën a amaat sécurité ndax jamono yi ñu toll dañoo

ndax séeréer la séeréer là. On la. <laughs> am problème prononciation sénégalais sénégalais la djola la. c'est <laughs> africain quoi bambara <laughs> donc euh, voilà. Ah, euh, maintenant euh, lan lañu mëna xaar lu yagatul dara c'est vrai que depuis 2011 bataille tey yëngu ci game bi yaa ci def ay jéego ah indi ci sa touche tamit ah bu am solo danseurs yi waroon nañu ñëw yalla def xamna embouteillage motax tax mais lan ci lan lañu mëna xaar ah sous peu de temps. exactement instant bii comme comme ni ko waxone

def que tournée nationale ba préparer une vidéo ak euh, di préparer une mixte, mixtape 100 afro dance 100 afro dance 100 naiha et tout et c'est nigérien quoi. d'accord C'est ce que nous avons fait très bien est-ce que am nga une collaboration avec quelques artistes du Sénégal qui ont euh, commencé à def ay contacts ba am yéene wu dugg studio liggéey affaire

bëgg naa mu bokk ci yi di Inshallah sama gars la mom, sama gars yi ñoo et tout yi de de temps en autre. et tout d'accord voilà ñoo moom bokk na ci ak ñeneen ñeneen ñi gisee évolution bi évolution mouvement hip hop fii Sénégal noo ko yo. Bon, man, c'est, je, peux dire que c'est assez bien. Hein. C'est assez bien là. Je ne veux pas dire que c'est bien. C'est assez, bien. Euh, parce que, en fait, nous avons carrément la musique nous exporter. Nous exporter comme Nigériens, nous créer une industrie musicale nekul gaay ay nañu ah man duma duma ki ma kii kenn du ma kenn quoi ay ñom gaay yi niw révélation yi comme man ay dib dund gis ñoo bokk ak ñeneen ak ñeneen zo ay nañu trop ah mais ñom en fait style musical bi ñu def ba légui des na pour ñu mën exporter tàngi sax maa gis problème euh, bi nek ci pour yow jafe-jafe fa la nek moy genre musical bi en fait c'est-à-dire instrumental bi ñu utilisé d'accord instrumental bi mais léegi gis nañ né instrumental yi moy gëna a wàññeeku gars ñu ngi joué en live di joué euh, ak ay oui c'est bien mais bu fekkee da ngay oui mais bu fekkee da ngay jouer en live en fait tu joues en live avec un instrumental hip-hop, hardcore, crunk music, tu fais comme les Américains, tu fais comme les Français, mais tu ne peux pas les impressionner quoi. Tu vois, il faut en fait que je ce... Moi, si su ma musique Sénégal du malax quoi pour moi. parce que je dama déglu ça malax man dama ne asiko là en fait. Ah. asiko la wax quoi. asiko boobu mi ngi ko jëlee man. yow pour yow man pour moi moom mooy suñu suñu suñu identité. suñu identité asiko. d'accord du mbalax asiko la. asiko mag du mbalax asiko parce que bo gisee. rasta bo gisee rasta ñu dem ci kaw. ñu dem ci kaw bu bëri bi ñuy dem di impressionner toi bi ci asiko ni ñu impressionner impressionné. d'accord tamay asiko. les bien danse danse africaine. tu vois D'accord mais pour mu pour mu déglu mbalax mu non ya moo très bien merci beaucoup Mohamed Camara de son vrai nom waye xam ngeen ne euh, il fait une bougie de plus à partir de ce jour kooku

Inil ma ñu anniversaire. Amen. anniversaire rafetlu leen ko santé bonheur oui il faut nous sànni kàddu ci Mariama Cissé mii di Miriam waaw ndax mom meun nañ ni ay wayjuram dañ ko jangal bam ne ar nga ne yar ko bam ne deur nga ñu ko mu ñuy bégal kon ya xam ni nga bëgg yaal na la ko yaal defal ñu lay souhaiter la totale au nom de toute la DTV par ma voix amin amin bien Adja yow lo wax yow Miriam mom ko xam dama ko apprécier la mm. elle est tout le temps souriante baax et tout <laughs> ba tout le temps en bonne humeur man lool moma gëna neex ci mom waaw di ko ñaanal di ko ñaanal ñuy gëna a fêter. Joyeux anniversaire. man li may wax moom moo ñu dalal ci télé bi. moo ñu fi jiitu ci télé bi di def ay ay affaire yu rafet yu am solo. ba tey ñu ñëw. ñeme di collaborer ak yow. Mhm. donc loolu yëpp ci sa mbaax la. ñu ngi lay ñaanal borom kër bu bu choc. mari choc xam nga choc. ah am un mari ci bi bu ko defee. mais pas choquant ah un mari ah. mais pas choquant un mari ah, ñëw di fa doxantu di def suñuy ah, solo alaaji Sall bi xam nga man mun naa ni mun naa ni man. sa doom bi moom sama doom la. Mhm. dëgg la parce que yàlla dafa def. daf ma daf ma daf ma bàyyoo. Mm-hmm. muy xale bu baax. lii vraiment wax rek. am mm-hmm. àdduna baax rek moo fi nekk. Mm-hmm. parce que fii ñu daje nii. du hasard. am tax yàlla daje lañu fii. mun nañoo dem tey ba tuddante ay doom am fi ay mayante njëkk am fi yeneen ak yeneen am fi moo tax en toujours nekkin na rafet mm-hmm. Mm-hmm. vraiment nekkin bi rafet na mm-hmm. nii ko tàmbalee nii yàlla na ko suñu borom gën a dëgëral nga dugg cent nga dund cent onze ans sans ordonnance beaucoup de santé beaucoup d'argent un bon mari moins de problèmes. eh waay très bien merci beaucoup merci ne pleure pas hein, ne pleure pas hein, il faut pas ah, pleurer je suis hein. émue en tout cas tout à l'heure on va faire un petit tour dans le bas là. merci beaucoup vraiment merci à toute l'équipe et au réalisateur Thion

heure mooy ñëw heure marul ñëw heure mu sentir damay ñëw si kàttanu yàlla ndax kër gi sama kër la li koy wane li koy firndeel mooy bi nga fii mujj ñëw sa bongo bi fii nga ko fàtte semaine waaw fii laa ko dox ah. samay soxla jël

Tidiane euh, Bass ak sama tante Jack. très et tout. d'accord en fait euh, Kibik... ah madame euh, sa tante là ah, oui oui oui. d'accord en fait bon cousine. Hmm. et tout ça. voilà parce que invité bureau et tout. ça voilà merci beaucoup. en fait Kibik, c'est mixtape bi mixtape baa euh, a ah, préparé et tout ça. d'accord la hmm. en fait clip est préparé. un deuxième clip. d'accord On promo et tout après le mixtape pour ñu may flow et tout. Ah, après inchallah l'album album travail maximum staff pour bien. très bien très bien Bongo en beauté ma INAYA euh, et puis ñu wax le dernier mot.

pour terminer. numéro 77 744 09 09. zone B. d'accord euh, juste sur la route euh, juste avant euh, Saphir. Mhm. si on vient. à partir de score di voilà c'est jugee score d'accord. et juste après Saphir beau gayville ville. très bien. voilà bien. voilà Myriam satisfaite. vraiment satisfaite. Mhm. Vraiment nice notre Europe. Et ah. j'en profite également pour remercier tout le monde, Nicolas. Vraiment, Ningen Madafal, Machallah. Ça a été une surprise de remercier <laughs> toute l'équipe de la DTV. D'accord. Chantan Lominga Khamantani m'a organisé les de remercier vraiment. Très bien. Vraiment. C'est bon, Fatima Non, Nicolas, on veut juste vous montrer euh, le changement aussi, le changement de couleur. Ah. On va prendre soit de l'eau froide mhm. ou bien on va juste utiliser les produits qu'on a là. Moi, j'ai de l'eau ici. Hein. Est-ce qu'elle est froide euh, pas froide non pas de sedd comme ça ah. ngeen mën ko gis bu gën a d' le temps Alaaji Sall Bigué di def leçon du jour ñu dellu ci wat ci fofu fekk euh, ndox bu sède bi ñew ngir ñu gis changement de couleur bobu nga xamantene mom lay def n'est-ce pas d' accord à tout à l'heure alaaji Saala Bigué nga ñu li nga xamante ne moom mooy leçon du jour Sénégal yëpp ñu ngi may woo naan ma alaaji Saala Bigué fu mu nekk ngir leçon du jour boobu nga xamante ne tàmmal nañu jërëjëf jërëjëf Nicolas vraiment tey dama kontaan trop nag presque vraiment daal euh, am naa lu mu yëg tey ci bis bi nga xam ne mooy bisu sama jarbaat bi uh-huh. di wax ne xale yi xale yu baax lañ xale yu baax lañ xale yu bëgg li ñuy def lañ danak uh-huh. euh, loo nekkul taalibam da doon sëriñam xam naa ne seen i waajur jiitu nañ leen ci yéen avant keneen di jiitu ci yéen. Mhm. moo tax éducation de base rek mu am solo yàlla na leen yàlla def mag. tey leçon du jour bi li may wax Nicolas réew mi léegi dañu toll foo xam ni maanaam léegi nit ñi dañuy dañuy jaay dañuy dañuy jaay seen ngor. Mhm. Euh, maanaam sax amul parce que Serigne Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma dañu mës ñëw ni ko diw dafa jaay ngoram. Mhm. mu toog ba mu ni amu ko woon. ngor ak ni mu neexee kenn du ko am di ko jaay. parce que léegi dama gis ni léegi nit ñi dañuy ñëw d'une manière bëgg xaalis. tax ñu wàññi seen dignité. d'accord perte seen ngor. te nit ki sam papa daan na wax nit ki li nga ñàkk na ko sa poche yëg mais bu ko sa dignité yëg mhm. parce que dignité rek mooy nit sénégalais bu njëkk ba da daan dox ci mbedd mi sangu ba set sol lu rafet xeeñ parfum bu ne ñaar fukk du nekk ci mu jóge Pikine dox jëm yaraax yaa koy dab rek xam ne kii soxla na ko te nit du nit koy laaj nga am xel jox ko waaye léegi réew mi foo tourné léegi nit ñi daal léegi ni ñuy doxale euh, doy na waar ñàkk nag lu mu ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk mar bu mu la tax naan parce que bu robinet yi tubbee rek da ngay mhm. kon nañ dellu waat xol yi mhm. garder valeurs yi sénégalais amoon démb ñu garder waat ko xam ne am nañ ay valeurs yu te valeurs dañ ko war di garder mhm. dañu téye di ngi am na solo trop c'est important Galas ana lan la ñu a xaar ci yow ci jamono yi nii nga nekk waaw man de fan yi nag moom si kàttan yàlla damaa nekk studio dama muy préparé. Mhm. mais xam naa ne daal lu yàgg dara. ragal naa ne balaa tabaski. single la album la lu muy doon. waaw single la boo xam te ne ma koy génne incha allah rabi. single la si kàttan yàlla bi mooy doon sa ñaata single. non presque waaw bi parce que am na benn morceau bu ma defoon woyoon si Aziz Ndiaye. waaw tout à fait waaw mais bii dafa am beneen version boo xam te ne nag si laa bëgg a dugg. Mhm. xam am lu ma wax ak xale jigéen ñi daal. da nga innové daal. waaw dama am lu ma bëgg a wax ak ñoom. da nga bëgg am loo bëgg a wax ak ñoom. waaw dama am lu ma bëgg a wax ak ñoom. très bien discours boo xam te ne faaw ma wax ak ñoom. faaw nga wax ak ñoom jigéen da càmm jigéenam jigen ji kese laay waxal. jigéen ji kese waxi wax ñoom diggante cham ak jigéenam. wa sen càmmiñ mooy wax ak yéen. voilà très bien mo leen di mo moo leen di conseillé. voilà très bien donc euh, elle a été l'invitée de euh, Myriam dans Trucs et Astuces Mode Beauté by Bumps Inaya. elle et lui donc euh, mën ngeen ko am fofu au 77 744 09 09 foofu ca euh, Sicap zone B donc gis ngeen li nga xamantene mom la ko defal donc pour ñu jéxal fofu rek ndox bu sedd bi ñëw na mu ngi noonu lo ci naka def. Donc on va juste tremper l'ongle euh, pour montrer. galas def ci dara bok def ci dara ci li def ni ay mu ta la loxo bi sénégalais yi gis adina non mais c'est grave ça. Comment naa leen hein dinañ jékki-jékki rek def créé loo xam nit ki. Eh. ala ah, police c'est magnifique. c'est waa ah, léegi def na deux couleurs. c'est magnifique. De temps en temps, mou orange, de temps en temps, mou jaune, ça dépend de ce que vous mou jaune, vous connaissez mou orange. Merci en tout cas, Fatima. <laughs> Euh, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de toi-même, tu sais. Euh, chaque fois, nous innover, indi, c'est une nouvelle touche et c'est la nouvelle donne. En tout cas, merci beaucoup. On se donne rendez-vous très, à très bientôt. Institut euh, Bams Inaya, Nek Zone B et bien sûr, Mbok Yakaridiak Amdi Jami. Ni les gens Akien donc les léegi dañuy ànd ak ki nga xamantene moy Modou Mbacké Niang ci xibaaru mbarax bu ko défé rek mu gëna yaatu dem ci kaw ci kanam ci lu baax restez avec nos programmes de la DTV Galas Bongo ñu bayila nga dem jéxal en toute beauté ñu wax joyeux anniversaire à tous les natifs de ce jour plus particulièrement à Myriam Cissé Njarmeew jërë ngeen jëf yalla mi am fay yalla leen fay du riche chacun veut être cousin c'est parti jël micro micro bi ay micro na <coughs> am na lu fi xew may tul may tul sata ak see seytaane ak see sata day tasub sëy dugal la si see tasub sëy dugal la

au cœur du quartier du Point E de Dakar, le concept de l'Institut de beauté